yi ci 24 mars 2024 ay policiers nag liñ ci tumaal ne ñoom ñoo ko métital ba mu jaar fa ñàkk bakkanam wara sax ñoom policiers yooyu ñu tëj leen kaso jamono ji fukki fan ak ñaar ci weer novembre bi ñu dëgmal la leen di atte ci tribunal Pikine njaboot gi nag di rafetlu boobu le dogal di yaakaar ne rek mbir yi dina leer Salimata Ousmane Diallo Euh, juróom-ñaari weer ginnaaw bu jëf yooyee daal di amee euh, juróom-benn policier yi nga xam ne ñoom la ñu daal di tuddoon ci faatu Mouhamed Diop Taaya juróom-benn policier yooyee convoqué nañ leen ci tribunal bu grande instance bu Pikine niki fukki fan ak ñaar ci weeruk novembre Iba Diop nekk mag ci Mouhamed Diop di wax ni am na yaakaar bu baax. ñun euh, daanaka dañoo gën a amaat yaakaar ci justice bi rek ndax xam nga problème su amee ñëpp ñu yaakaaroon ni audience du am audience du am suñu demee ba wooñu jox ñu datu audience doon na surprise bu rëy si ñun bokk na na si loo xam ne tamit dina gën a dalalaat xelu famille bi ba ñu xam ne yoon mu ngi nekk si liggéeyam. njabootu Diop nag lu ñuy sàkku jamono jii mooy bés boobaa dëgg daal di feeñ ba Mouhamed daal di am ndam. daal liñ ciy xaar mooy lépp daan bi nga xam ne war na cee am. ñu def ko taxamante ni bakkan la ñu faat bakkan boo xamante ni ni ko faatee anam bi ñaaw na te doonoon na koo xamante ni daanaka daal moom moo yoroon kër gi. ñu ci yokk nag di daal woo képp koo xamante si ni défenseur droit de l'homme nga ak société ñëw assister procès boobu lay am di Moustapha Ngom nekk nijaay ci kii di Mouhamed ñi nga xam ne ñooy société civile ak ñi nga xam ne ñooy défendre les droits de l'homme ñu ngi leen di woo le 12 novembre ci procès Mohamed Taya te yaa ngi fàttaliku ay weer ngi ni xale yi Pikine ñoom ñëpp ñu ngi toog di xaar procès suñu bëggee def dara ñu leen déedéet tey nag yoon convoqué nañu le 12 yaakaar nañu le 12 incha allah Mohamed Taya fa mu nekk dina talité dina am ndam ndax dañ koo tooñ toroxal ko te ko def ñëpp ay alkaati lañu ci ci weeru mars ci atum 2024 jouru présidentielle ci technopole foofee la daal di xewee ci xibaar yi ñu jotoon nag li waraloon policier yooyu daal di dóor ba mu daal di faatu mooy ni dañu daal di fekkoon ci moom ab yàmba ñu koy daal di dóor nag ba dóor bi ëpp leen loxo Salamata Ousmane Diallo Pikine rajo Futurs Médias Salamata Ousmane des eh, ci wàllum yoon ba léegi ak meneenu mbir xewee ca Matam di mbirum eh, ndaw si di ba Sangare Ndiaye moom eh, ndaw soosu nag nekk kaso jamono ji nag eh, dafa yor ay vidéo di koy siiwal di vidéo yu doy waar yu mu génne ci moom ndaw si nag moom tamit porté woon plainte ndaxte nee na jëkkëram da ko doon doon di koy méttital ba sax jëkkër ji di ba Badara Mbacké eh, nekk eh, médecin chef district bu mattam jàpp nañ ko démb ba war ko jébbal procureur leeral ak Aliou Bandel coow lii lëmbee Sénégal waxtu yi rawatina ci réseaux sociaux yi am na lu ci bees docteur Cheikh Mbacké mi nga xamante ni dafa amalanteeg ne woon soxnaam teg nañ ko loxo élément yu commissariat central bu Matam ñoo exécuté ndigalu parquet bu Matam médecin chef district sanitaire bu Matam bi nag lañ koy toppee njortees nañ ni jëm na ci wàllu coups et bi mu am lekk kana woon ma ci xibaar yi ñu taataan nag procédure bi daanaka ci weeru juillet lañ ko tàmbali woon ba mu jotoon sax jaar ci kanamu enquêteurs yi boobu ba léegi nag mbir mi dafa ne woon teg waaye fi mu ne mel na ni procureur tam bu bees bi moom ak réactivité bu rëy la àndal ba actionné ak enquêteuru police yi docteur Cheikh Mbacké mi ñu teg loxo ànd na itam ak benn ASP ak benn agent de santé communautaire mu di dina ak interpellation bi nga xam ni ci diwaanu Matam jamono yi moom la ñuy waxtaane fépp ba mu xaw sax làq inondation yi nga xamante ñu ngee wéy di lor askan wi ci fàttali nag docteur Cheikh Mbacké mooy médecin chef district sanitaire bu Matam boo ba léegi nag mu ngi am lanteeg syndicaliste yi bokk ci SDT 3 la koy firndeel di mouvement de grève yu bare bare yi ñu doon def ba ci sitting yi ba mu wóolu woon police sax ba jàppalu ñenn ci syndicaliste yooyee di ab bras de fer bu gudd lool waaye ci biir boobee am na nag njàppandal bu fës mu ñeel ñi nga xamante ni ñoo jiite comité de santé te bokk ci département bu Matam mu nekkoon seen atango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel eh, Niang wax nga ko mbënd yee ca Matam waaye yemul foofu ca Tamba tamit lu ni lañ fa nemmeeku li ci doleeku nag eh, bees moo di ne ay ñaari popotam di li yoo xam te dafa génn foofu ca fleuve Gambie eh, jural nag askan njàqare ndaxte ci bu yàggul at yi ñu génn am na benn popotam bu fa génnoon ba sax faat fay ba kenn leeral ak Pape Ousseynou Diallo teewaayu leebar yu ñu doon ragal mujj na am ci tool yu nekk ci wetu dexu Gàmbi bi ñaari leebar daal dinañ leen seen démb ci ngoon ba juróomi waxtu jotee ci dëkk bi di Medina Bulakunda nekk ci commune Missirah département bu Tambacounda ci fan yi ñu génn ñaari takkandeeru leebar lañu seenoon ci dexu gulumb bi ñu nekk ci wetu dex bi rawatina producteurs yi nag war nañu moytu leebar yi laata ñuy def njombe bu ñu fàttalikoo ci ay at yi ñu génn lu toll ci ñaar fukk doomu aadama rawatina ay nappkat nag la leebar bi faatoon ak kenn ki nga xam ne nekkoon na fa imaam ci jàkka ju gulumb Tambacounda Pape Ousseynou Diallo rajo Futur Media. Pape Ousseynou Diallo loolu xew ca euh, diwaanu Tamba di ndoxu taw yi ak mbënd yi waral nag euh, fu nekk waaye di fay jógee ngir jàppale askan wa ci jafe-jafe yi dund jamono ji bokk na ci nag euh, waa Yeesal di génn ci kuréel gu ëmb ay commerçant ñoom nag ñetti millions luñ génnee ngir jàppale ko waa Bakel ñaax tamit askan wi yëpp ñu jukk jàppale leen ñoru laru ci ndoxu mbënd yi foofa ca diwaan ga dañ ciy déglu président bu a waa Yeesal Cheikh Cissé ci micro Abdourahmane Diallo li nga xam ne moo am te ñëpp war ci jàpp mooy li nga xam ne yàlla indi la ci réew mi muy dex gi nga xam ne moo nekk ci côté Bakel débordé ba laal commerçant yu bare bare bare Bakel ak population ba bi loolu amee nag comme xam ngeen ne INACO Wayassal mi ngi ci quatorze régions yi quarante six départements yi du a ñàkk moo section bu ci am problème faaw mu jéem a jóg ci lim man pour jàppale population ba fa nekk ak commercant yi nga xam ne moo fa féete bi li amee nag ci la ko Wayassal initié wax dëgg yàlla pour jàpp ci ndaxte man mënoon a joxe lépp li nga xam ne moom la gox boobu du dundee kon inaak waaye sa du ko seeq ak kenn waaye teraanga du tuuti loolu moo tax euh, Serigne Mbacke Dieng bi nga xam ne tey jii moo yore section département bu Bakel consiga effort ak tous les yi nga xam ne ñu ngi nekk ci côté boobu ak bureau national bu inaak waaye sal également ci ndigalu bureau national bu inaak waaye sal ñu yóbbu benn montant wu trois millions ci lu mel ni ab dund lu mel ni ceeb ak diwlin nag yu mel ni yooyu ñu teg ko ci loxol préfet euh, muy wane rek ne lii mooy àddina parce que ñoo faire la force euh, ku ne xam na ne état Sénégal mënul lépp may lancer appel ci bonne volonté yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi su lu mel ni amee ñu bañ koo bàyyi état rek ku ne dugal ci loxoom. mu nekkoon euh, Cheikh euh, Cissé di président bu UNACOIS Yessal ñoom nag ñetti millions lañ génnee ngir jàppale ko ñi loru yi ci mbënd yi foofule ca diwaanu Tamba ñeneen ñoo xam tamit fas ñu ci dugal seen loxo di force paysanne di kuréel gu mbay baykat Aliou Dia jiite ko ñoom tamit jamono ji ngir jàppale askan wi ci jafe-jafe yooyu ñuy dund ci li nag bi mu doon jox nag taskatu xibaar yi moom tamit leeral na ci wàllum politique ne amul benn liste mbokk moom Aliou Dia dañ koy déglu ci micro Yacine gi jëloon nañu itam ay ay bor jëlee ko ci banque yi te banque yooya bu jotee ñoom dañuy continuer rek di ko laaj dañ ko war a laajee nag nguur gi jël ay matukaayam ci loolu nañu génnee itam ne te fexe leen da yóbbul foo xam ne dañ leen fi yóbbu ñuy jàng nu boo xam ne danaa ko wër a fan yu néew danaa fa demal suma bopp seet ko waaye lu ca war itam ci ndimbal force paysanne ak fu mu ko mën a jëlee mu defee dadañ ko def pour jàppale ñoom ku ne daana ma gis ci liste daanaa conduire ay liste daanaa nekk ca deux waaye leen nekkuma ci benn nekkuma ci xam ne dañoo yor ay liste ñëw nañ jege si nañ ma waaye ma ma ko faral doon defandoo gis naa ne daal wax dëgg yàlla niwuma ci benn kon nag ñi nga xam ne dañoo ànd ak man suñ farata mooy ñii ne ci mbënd mi duñ leen dimbalee waaye nag yéegi suñu waru muy wate danañ wate kon semaine bii di ñëw danaa def benn déclaration boo xam ne danaa leen wax yéen ñi nga xam ne yéen a bokkoon ci sama parti yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ci force paysan ñi nga xam ne ay soppe lañ woon di ma déglu pour nan la ñuy def ba élection jotee danaa leen joxeñ foo xam ne fii bu ngeen ca defee loo xam ne lii am am baat. mu nekkoon euh, Aliou Diakha njiitu euh, kuréel gii di force euh, paysanne na heures tegal fukki minutes ak ñaar ca Mbalaxe ak Labgar nekk ca diwaanu Linguère. pour RFM mooy bi gën seen soxla. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di coow euh, ger euh, gi ngi ne euh, dafa am ñu koy lamlamee ca Azer di kër gi nga xam ne mooy yittewoo wàllum courant yi ci dëkk kaw gi ñu ne nag ger dafa am ci benn marché bu ñu fa joxe marché boobu nag jëmoon ci fexe ba courant am ci lu toll ci junni ak juróom dëkk dëkkaan yu nekk ci réew mi mbir moom nag li ci bees moo di ne démb kuréel mooy comité de règlement de différend bu ARCOP ñoom nag daal nañu dëggal dogal bi ñu njëkkoon a jël maanaam dakkal marché bi nee neen sax bu fekkee ne ay jalgati am na dàqu ñu teg tegi daan ñi def lu ni mel leeral yeeg Mouhamed Diop comité de réglement des différent bu autorité de régulation de la commande publique di ARCOP daje nañ àllarba ji ci ngoon bu ñu sukkandikoo ci suñuy xibaar bokk na ci dogal bi nga xamee ne jël nañ ko ci muy bu gën a mag mooy CRD bi jël na dogal dakkalandi jël na dogal dëggal dakkalandi bi mu amaloon ci marché publique bi nga xamee ne agence sénégalaise d'électrification rurale defoon na ko te mu jëm ci jox électricité junni dëkk ak juróom-ñaari téeméer yu nekk fii ci biir Sénégal bu ñu sukkandikoo ci gendarme marché public bi li mu bëgg def bokk na ci joxaat beneen chance autorité contractante bi ci marché bi muy ASER di agence sénégalaise d'électrification rurale ngir mu weddi tuuma yi nga xam ne gàll nañ ko ci ndoddam ci marché bi nga xam ne marché coow la toll ci ay milliards yu bare bari bu fekkee nag document yii nekk ci passation de marché bii Azer doon lancé am na lenn loo xam ne bokk na ci njuuj njaaj maanaam surfacturation dàquñu sax ba sanction pénale maanaam daan boo xam ne day jóge ci yoon ki ñu jàpp ne nag moom moo def luubal bi dañ koy génne benn yoon ci lépp li nga xamee ne moo jëm ci marché public. Mohamed euh, Diop wax euh, ci geneen caw di coowal décret bu réer euh, jëm nag ci wàllum jàngalekat yi nekk ci université yi bu ñu fàtt wala ñu retraité yokk seen i ndàmpaay ak leen leen di jox ministre enseignement supérieur ne décret boobu ñoom bi ñëwee gis ñu ko dafa réer mu nekk lu yéeme waral sax ba waa SAES e démb tey nekk. nekk ci grève ngir sàkku décret boobu ñu daal di koy xaatim jëfe ko ay nag nit ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum nguur ak tamit wàllum gouvernance ne loolu mënta nekk décret mënta réer ak lu mën a xew même bu réeree sax dina bàyyi trace jomaroon mbirum décret boo xam ne gisuñ ko ministre enseignement supérieur daal di ko xamal askan wi loolu indi ay laaj yu bari dafa mel ni lu reetaanlu ki fi nekkoon directeur bureau organisation ak méthode Pathé Ndiaye ne bu fekkee ne décret bi publié wuñ ko kon nekkul décret bu ñu publié wul ci journal officiel mënuñu wax ne am na waaye perdre décret moom mel na ni loolu mënta nekk. bu président de la république signé ba pare nag ñu delloo ko secrétaire général gouvernement ko numéro enregistré ko publier ko au existe parce que dina fekk moo am numéro ah dina am euh, dina publier dina fekk ñu publier ko comme ça mu mën produire ay ay effet mais tant que euh, yooyu yëpp euh, feeñul kan mënu wax ne décret am na décret amul décret le décret on le retrouve pas mais ça veut dire quoi s'il a été publié kañ on on le retrouve waaw ah, mënul reer parce que <laughs> journal officiel mi ngi fii Abdou Fouta jàngalekat la ci école nationale d'administration ENA mu gis ne fi décret di jaar laata ñu tokk ba mu ñor tax mu ne dafay bàyyi ay traces mu yokk leeral ne bu demoon sax ba décret boobu amoon waaye dafa réer ñi nga xamante ñoo ko liggéeyoon mën nañ ko defaat ci ñaari fan rek. mënu fee réer mi ngi mel ni oto boo xam ne day kuule huile ñu taal ko sur trente mètres di ko déplacer dafay am aw saaw kon décret boobu am na saaw woo xam ne boo ko xoolaatee am na fa fu mu aw te di nga xam toq-toq yu bari maanaam fi oto bi taxaw fu avant muy jëm si kanam fan la même bu defaraat ko. bi nag mën a jaaxale ñu bari ministre enseignement supérieur ne décret boobu gisuñ ko ñi seen xel màcc ci mbirum administration ne décret bu réer moom mënuñ ko gëm laata mu leer nag bu ci solution amul njàng ca université yi wéy di am ay jafe-jafe ndax grève waa SAES. E je maroon euh, wax ci leneen euh, di kàddu yi nga xam ne ministre bi ñu teg wàllu mbay mi fii ci senegal yëkkati na ko ca assemblée générale bu banque mondiale ak FMI ñu koy amal euh, fële ca moo di ne at mu nekk lu tollu ah, ci eh, fukki milliards ak ñett ci suñu xaalis senegal ah, dina ko génne ngir nag wàllum dund ah, mu xam ceeb ak eh, diwlin ak yeneen ak tamit ci wàllu meew sax nee na lu tollu ci eh, juróom benn téeméer ak juróom fukki milliards di 550 milliards dañ ko ci génne kon man doon ministre bi xam ne ci ndaje boobule ki ñu ko doon toppal di Mouhamed Bayon solo daje bi mooy naka la ñuy xamee ne alimentation ak agro agroalimentaire mën a nekkee benn jumtukaay de croissance durable ak création d'emploi bu ñu sukkandikoo ci Mabouba Diagne dañoo war a jàppale gouvernement yi amal ay politique yu baax dooleel secteur privé bi dooleel petite exploitation agricole yi fexe ñuy am jiw bu baax ak ay intrants yu mucc ayib ak jëfandikoo xarala yu bees yi dana tax ñu amal ay production yu baax ci wàllum dund ba noppi mën ko dugal ci marché bi ngir amal benn concurrence ci wàllum productivité ndax rek bu concurrence amul gouvernement yi dañuy woy di dugal seen koppar ci loo xam ne du saafara benn jafe-jafe war nañu itam gën a puus gouvernement africain yi ñuy dugal seeni xaalis ci li nga xam ne mooy farata ba noppi di boole secteur privé bi ci li ñuy def ndax mën na andi ay possibilité ak ay solution durable ba tey moom jëwriñ gi di xamle ne nit ñi bu ñu gisul avenir bu baax ci mbay mi daanaka rek boobee mbay du dox ba tey moom jëwriñ gu yore wàllu mbay mi ak souveraineté alimentaire ak càmm gi fii ci Sénégal daal dinay xamle ci boobe daje international na Sénégal jamono ji mi ngi jëggaani lu jege ñaari milliards ak ñaari téeméeru millions ci dollars ci ay denrées alimentaires ngir askanam mu yemook lu ëpp fukki milliards ak ñett ci sunu koppar ba tey Sénégal dafay jéggaane ci wàllum lait en poudre ci lu jege téeméeri millions d'euros maanaam lu ëpp juróom benn téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci suñu koppar at bu jot. Mouhamed Aba Bayo dañuy daaneel wàllum politique ak dogal bi euh, Déthié Fall jël démb euh, ci neen nag euh, génn na ci coalition sàmm sa kàddu bi mu bokkoon ngi dem fekki waa Pastef ci élection législative yi ñu dëgmal loolu nag ay xeltukat ci wàllum politique neen mën na ko yàqal lu bëree bëri moom njiitu PRP nga xam te ne nee nañu mel na ni mu ngi ko topp tànku Idrissa Seck mi mu bokkaloon parti gëstub Ibrahima Diamé ci digg wàccaay élection législative la Déthié Fall nekkoon cinquième ci list national coalition bi di sàmm sa kàddu la daal di woon gannaaw ay ñooñam ngir kon wutali Pastef parti au pouvoir loolu nag du baax ci image ci gis-gisu askan wi bu ñu sukkandikoo ci analist politique bi di Abdou Fatah Fall rax ci dolli problème mu confiance bi mu ko mën a jural ci wàllu politique. en bu desee politique café calcul rek ni mu ko defee nii mën na tax bi ëllëg ci wàllum alliance wala coalition xëy na am na complicité boo xam ne mën dinañ ko mën a am si moom dana wàññeeku parce que di maa ngi koy fàttali ko boo toogee ñuy waajal ci élection bu am solo ni élection législative nga am ci place bu baax nekk ci coalition boo xam ne am na yaakaar ci yow nga xaar ba processus bi pare ba desul lenn lu dul jongante yow nga ne da ngay babeeku da leen di bàyyi foofu dem ci seen adversaire yi bon xëy na yow ni nga àndoon ak ñi nga fekk ñoom mën nañ koo gisee lu baax mais yow ni nga bàyyi daanaka ñi nga bëgguma wax terme bi daal mais bon ñu ngi fi bàyyi daal tey yaa doon ànd ak ñoom ëllëg nga war a jàkkaarloo ak ñoom doon réunion ak ñoom wax dëgg yàlla moom ni nga gisee du baax. bi muy expliqué li tax mu doxalee noonu nag Déthié Fall nee na mënul jàkkaarloog Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom la mosoon a àndal di koy wax yenn wax yi waaye nag Abdoulaye Mbow moom journaliste la xam-xamam màcc ci mbirum jàngat politique jàpp ne Déthié Fall moom dana ci ñàkk waaye dafa nekkoon ci diggante. diggante bi lay tontu parce bu mu jëlee décision ni dafay yi da si dynamique jàppale Pastef si nguur gi waaye tey bu mu quitté sàmmkat bi am na tam yeneen conséquence parce que secrétaire national bu yor woon élection yi si PRP gis na ni moom tam annoncé na démission ndax kon di ci faal moom dafa nar a topp tànk Idrissa Seck bu ko nit ñi di xaar fii mu jaar fële loolu nag Abdoulaye Mbow nee na teel na pour ñu wax ko man jàpp naa ni nag kaay euh, bokkul parce que tamit euh, Idrissa Seck ak jaar-jaaram si wàllu ak euh, yenn décision yu mu jël te gàllankoor lu bari nag wutali Pastef dafa mel ni Déthié Fall dafa jox dëgg kii di porte parole di Abdoul Aziz Mbodj mi nga xamante ne moom dafa jëloon décision bu yàgg ne moom Pastef lay jàppale. kon dañuy yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg euh, Youssouf Bodian ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu doolee ko ak CAN Beach Soccer di football ci tefes ñu koy amal jamono yi ca Égypte demi-finale yi tey ci jeudi bi lay doon bu 12h jotee Sénégal di dajak Égypte pays organisateur ñaari équipe yi kon di dajewaat euh, ginnaaw seen final bu mujj bi amoon kon ci euh, CAN bi weesu ñu ànd ci ak Soda Thiam sunu ndaw foofu la ca Égypte. Sénégal Égypte di affiche bi ñu gisoon na ci finalu CAN beach soccer bi weesu mu di ñaari dëkk yoo xamante ni xamante nañ bu baax te ku ci nekk nag maîtriser nga sa adversaire la koy firndeel moo di ca final gu mujj ga ñu amale woon ca Vilankulu ca teg dóor ya lañ leen mujjee tàqale loolee tax nag kay tàggat gay nag Sénégal yi ni xam na bu baax li koy xaar Omar Ngala Silla waaw Égypte ku ko xam euh, ñun tàmm nañ jouer ci organisateur ku ko amuy coupe xam la nekk bien que le aussi Égypte xamante nan yàgg nañ jouer ak ñoom ay compétition yu bëree bëri daaw géeju su bëri dañ doon jouer chaque compétition dinañ dajeex moom en tout des nag ñu ngi ñaan peuple sénégalais bi continuer ñaanal xale yi ba le 26 leen ndam bi incha bu fekkee nag Sénégal daanaka dafa nekkoon ci ay calcul pour mën a qualifier ci demi-finale yi ka dajal di Égypte moom ab carton plein la daal def te fi ne nii nag ci kanamu publicam lay daal nar a gën a métti waaye Raoul Mendy am na confiance bu baax ci naataangoom yi. waaw Massi moom xam nañu du yomb parce que comme Égypte daaw dóoroon nañ ko final tamit euh, yaakaar naa ni dinañ ñëw ak revanche équipe bi daanaka dañoo renforcer waat comme am nañ yeneen quatre donc équipe bi gën na baax donc ñun tamit renforcer nañ ak quelques nouveaux yaakaar naa tamit euh, dina doon mas bu métti daal mais mais ñun tamit comme suñuy continuer nekk suñu objectif rek donc suñu bëgg-bëgg mooy dem jëli ji bi donc yaakaar naa si loolu la ñuy focus gën a continuer liggéey euh, kenn lu ñu fi ñu ngi ko gisee woon ci kan gu mujj gi Sénégal di dajawaat ak dëkk bi dalal ci demi-finale yi Égypte Sénégal nag ab jongante la goo xamante ni ñaari enjeu moo ci nekk benn bi di qualifié ci finalu kan gi ak am ticket gu koy yóbbu ca mondial Seychelles 2025 mu ne woon Soda Thiam fii ci Hurghada Égypte ngir radio Futur Media. Soda Thiam kon demi-finale bi tey la bu 12h jotee Sénégal Égypte. ñaareelu demi-finale bi dina dox diggante Mauritanie ak Maroc bu 13h30 jotee ñu waat Sénégal waxtaanee football à ak tournoi UFOA zone A des moins de 17 ans première journée bi euh, tëj nañ ko démb ca stade Lat Dior bu Thiès Mali moo daan serale woon benn bal ci dara match nul kenn dugalul sa moroom dara euh, diggante Mauritanie ak euh, bi saw ñaareelu bëccëg bi suba ci ajuma ji lañ koy tàmbali bu 16h jotee Gambie mooy dajak Sénégal mi gañe matcham bu njëkk. ñu dem ci Europe waxtaanee Ligue champion foofu foofule tëj nañu seen ñetteelu bëccëg FC Barcelone moo daan Bayern Munich ñeenti bal ci benn Rafinha ràññeeku ci match bi moom capitaine bu Barça dugal ñetti but Manchester City moom it daan Spartak Prague juróomi bal ci dara Alan dugal ñaari but ci match boobule Liverpool moo daan Leipzig benn bal ci dara Darwin Nunez moo dugal seen but. mbetteel am ndax Atlético Madrid lil moo ko daan ñetti bal ci benn doomu France yi kon ginnaaw bi ñu daanee Real Madrid beneen club bu mag bu Espagne Brest di beneen club bu euh, France ñoom it def match ak champion bu Allemagne di Bayer Leverkusen un but partout Abdallah Sima doomu Sénégal bi nekkoon titulaire côté euh, Brest. yeneen résultat ñetteelu bëccëg bi Inter Milan moo daan Young Boys euh, Bern benn bal ci dara. Salzbourg euh, Dinamo Zagreb moo ko fekki daan ko ñaari bal ci dara Feyenoord Rotterdam daan euh, Benfica bu Lisbonne ñetti bal ci euh, benn 0-0 diggante Atalanta Bergame ak Celtic Glasgow ñu war Sénégal waxtaanee xew-xew bu association national bu presse sportive bu Sénégal ñoom kon tey ci suba dinañu kon def dépouillement ngir xam ñan ñooy sportif yu gën a ràññeeku ci saison 2022 2023 ak saison 2023 2024 ginnaaw kon bi rédaction yi voté euh, tey bu 9 jotee la ñuy dajee ci maison de la presse ngir kon daal di def décompte bi ngir xam ñan ñooy sportif yi gën a ràññeeku ci ñaari saison yu weesu fii ci euh, Sénégal fi la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram yi di leen ci déglu bi. jërëjëf euh, Youssouf Bodian ñu koy gërëm bu baax a baax. wéy ci xibaar yi yegg si léegi ci xibaar yi ñeel aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Anna maa ngi leen di nuyu mbokk yi benn semaine gannaaw bi ñu adopté projet de décret bi soxal rémunération copie privée ci conseil des ministre ministre bi ñu dénk wàllu culture daal dina dalal ñi bokk ci commission copie privée euh, boobule mu di euh, ndaje kon ngir waxtaanee lu war a doon ñaareeli étape bi Khady Diène euh, gay ministre de la culture. décret bi nag adopté nañ ko am na liggéey bu des mais ñun dinañ ci taxaw tem ba ngeen ne ak ñëpp ñu ko seqal. dinañu wëyal liggéey bi ba nga xamante ne ci diir bu gàtt képp kuy artiste di nga mën a jëriñoo gis au moins sa ñàkk loolu nag taxul itamit problème yi yëpp réglé fii ci Sénégal ci wàllu monde de la culture mais ab avancement la avancement bu rëy rëy la te dina tax itamit problème yu bëri wàññeeku. Ngoni Ndour di présidente conseil d' administration bu euh, SODAV moom a am ci euh, mbégte loolu gannaaw fukki at ak juróom-benn yoo xam ne acteur culturel yi ñu ko doon xaar. tey moom waa doon ñëw pour fêter je pense que c'est ça le avec euh, madame euh, le ministre bi nga xam ne ni que ne woon na commission bi woo waa SODA pour ñu toog vraiment euh, wax ci euh, décret bi nga xam ne ni ko jël nañ ko semaine passé bu nga xam ne am na fukki at ak juróom-benn acteurs yi ñu ngiy xaar que ce droit la ñu mën ko appliquer au Sénégal parce que boo xool ci côté koom-koom. du moroomu droit d'auteur ñu am nag remerciement bu am fin début te amul fin aux nouvelles autorité mais plus particulièrement à Madame le ministre qui s'est battue franchement pour que euh, ce pas historique la ñu franchir ko pour que enfin euh, acteurs yi mën a mën a récupérer li nga xam ne ni que ne ñoom daf leen lew. collecte redevance bi nag war nañ ko tàmbalee jëfee ci weeru décembre gi ñu euh, dëgmal mu war a doon nag koppar bu takku ngir euh, acteurs culturels yi bu ñu sukkandikoo ci Aziz di njiital commission copie privée bi. rémunération pour copie privée benn ndàmpaay la rek jox. artistes yi producteurs yi auteurs yi pour lan pour euh, ñu ñuy copier seen liggéey si kër yi xam nga kenn mënul dugg si kër di surveiller loi bi autorisé loolu mais mën ngeen copier heure yu sooy nekkee seen kër pour yéen mais dafay gaañ artistes yi donc ndàmpaay boobu la leen jox ndàmpaay bi nan la naka la demee dafa am benn pourcentage yu ñuy def si bépp jumtukaay moo xam support la wala appareil boo xam ne nit dañ koy jëriñoo pour enregistrer. ñun comp 3 pour cent gis nga su benn CD jaree 100 francs mu nekk 103 francs xam nga bariwul ah su benn téléphone yi jar 1 million ak yooyu 3 pour cent dong. mbokk yi fi lañ yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar kay espoir ak kay teranga Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune NSIA assurance ñoo li ni may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Déthié Fall mi sàmmul kàddoom gi mu joxoon waa sàmm sa kàddu ba tax mu fabu ci pastef roñu ci pastef dem ca pastef dem gu ànd ak pastef yéenekaay yi xëy nañ ci moom ak pastef vox populi nañu moom jiital PRP di parti républicain pour le progrès di Déthié Fall ginnaaw gise bi mu gise woon keroog ak premier ministre Ousmane Sonko moom Déthié Fall démb la xëyoon ab conférence de presse ngir doon xamal askan wi li waraloon gise ba fa la ne dafay jóge ci coalition sàmm benn yoon jël bi mu jël mu di dem ànd ji Pastef ndax fi mu jaar ak Ousmane Sonko Déthié Fall ne moom ak Ousmane Sonko jaar nañu foo xam ne doon na jafe ci moom trop muy taxaw naan mi koy critiquer ba mi koy ŋaañ le témoigné nañu Déthié Fall démissionné ci coalition sàmm sa kàddu dem jàppale ji waa Pastef ba noppi nag leeral li tax mu doxale ni mu doxale ci xët mu njëkk journal lay fa mu fa yax moom Déthié ne ay choix politique dafay lale ci ñaar benn bi moo di sa aqulay taala ba attaqué premier ministre Ousmane Sonko ba muy critiqué président Diomaye Faye te loolu mënutoon nekk ci man ba pare may nekk ci biir coalition sàmm sa kàddu bu ko faa nekkaale Déthié tëj ay waxam ci ne dana def kémtalay kàttanam dem ci à ngir Pastef am ndam lu rëy ci élection législative yi ñu jëm lii quotidien ko ak loo ci mën di dégg daal mooy def nga lu ñaaw indigne la ko journal bi bindal ci xëtamu njëkk yéene bi teg ci di laaj koy buum jamono ji ci réew mi professeur Moussa Diaw dip enseignant chercheur di ñu wax ci Walf Quotidien ne Déthié Fall li mu def li mu ko mën a yàqal ci wàllu politique bare na ni mu doxaleeg waa sàmm sa kàddu sax mën naa tax fa mu moom Déthié di waa Pastef ña mu fay fekk duñ ko wóolu le public gis ne Déthié li mu def deful dara lu dul dëggal wor yi ñu ko doon waxal Thierno Alassane Sall di ñu wax ci yéene bi ne moom Déthié waa Pastef histoire ndax ni Macky Sall doxale woon ak waa jii di Jibril Ngom ci élection législative yi ñu weesu recevoir ko ci audience ca palais ba fekk booba moom Jibril Ngom moo ne woon mandataire bu yeewi askan wi ca Matam noone la Ousmane Sonko doxale ak Déthié Fall mi mu recevoir keroog ca Petit Palais te fekk booba ñi ko investir moom Déthié Fall ci liste yu coalition sàmm sa kàddu la gis na yoon yi Macky Sall jëloon waa Pastef tegu nañu ca gaañu Pastef maire bu Tamba di Pape Banda Gueye moom it fekki na waa Pastef le di laaj ginnaaw Déthié Fall kan moo ci topp ñu toppi mairum Ndakaaru di Barthélémy Dias tête de liste coalition Sàmm Sa Kàddu mi ngi ci xët mu njëkk Le Quotidien waxtaan wu yaatu la fa xëy def ak yéenekaay bi page 4 ba bu yéenekaay bi di Le Quotidien moom Barthélémy Dias mairum Ndakaaru moo fa fàngam Barthélémy Dias nee fi ñu toll ni lu ñuy gën di dem askanu Sénégal di a manipuler ba dugal leen ci yoon woo xam ne amul fu mu jëm nee na fi nekk am majorité ci assemblée nationale loolee mooy réew mi torox na Barthélemy Dias ne mars 2024 ak léegi gisuñu benn jéego bu wér bu ñu teg ci réew mi ngir jële fi chômage gu métti gu tar gi ndaw yi réew mi di dund Bougane Gueye Dany may dund jamono ji ca kaso bu Tambacounda Barthélemy Dias ne na la ma ca waxoon rek laa cay wax moom Bougane Gueye Dany dañu ko jàpp otage jàpp nañu docteur Alioune Badara Mbacké l'observateur moo ñu jox xibaar bi ci xët njëkk ba dañu wax ne jàpp nañu ko ba jàppale yeneen ñu jàpp ne ay complice lañu ñuy toppee docteur Alioune Badara Mbacké libération nañu procureur Tamba moo santaane ñu dem jàppi ko moom lañu jàpp akub sëfëram ak ñaari agent yu doon liggéey ca district sanitaire bu maatam am na keneen ku ñu ciy tudd ku tudd Mayacine Gueye libération nee nañu nee nañu mooy cinquième suspect bi moom nag ñu ko ndax dafa daw société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar Kaye Espoir ak Kaye Teranga Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune NSIA assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ci yenn yéen kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñi koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen yem ci xibaar yi ne suñu dafa pàttali ci li ci gënoon fës juróom benn policier yi ñu ni jàppoon ci mbirum faatuk ndaw Pikine bi di Mouhamed Diop Taya daañu leen atte fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu mal njabootu Taya di yaakaar digg dëgg jëpp ci mbir mi meneen nu mbir eh, di mbirum Dieynaba Ndiaye di soxna si ne borom këram da doon méttital moom boroom këram di Alioune Badara Mbacké médecin district bu Matam yoon teg na ko loxo démb war ko jébbal procureur tiitaange ca diwaanu Tamba ñaari hippopotame di léber eh, ñoo fa génn di sonal askanu Medina eh, Bulakunda waral ñuy woote wàllu ci ni mu gën a gaawee pënd bi wëreegul ci coowal ASER kuréel gi lijjanti féewalo yi ca ARCOP autorité de régulation des commandes publiques taxaw fa mu taxawoon dakkal njoxem projet bi jëm ci liggéey projet boobule. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias Alhaji njogu Diène nekkoon ci micro bi Abdou Thiam ci machine bi may sama ci digital bi ñu leen di sant di leen di gërëm ci kanam tuuti euh, penco waxtaane wàllum transport états généraux waxtaan yaa ñi ñu amal ak Boubacar Dieng jaajëf jëf ci ànd beeg RFM ñenn ak jàmm rentrée des classes école bi ñëw na seen société SIPEX di société industrielle papeterie express bu Sénégal am équipe bu dynamique te qualifiée à 100 ay jeunes sénégalais jënd seeni machine industrielle de la haute technologie di leen proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la SIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnel la CIPEX lance cette année Kaye Teranga ak promotion